on a vu ci kujje gi ku leen rejoindre bees mooy muy Idrissa Seck ginnaaw bi mu ci nekkee woon en deux mille entre deux mille treize ba deux mille dix neuf bàyyi ko. dem euh, fekki le président Macky Sall en 2020 def fa deux ans tey ji mu génn euh, pour nee na nekk candidat a la présidentielle euh, ce retour de Idrissa Seck dans l'opposition ñu bëri accepté wuñ ko moo ko tey jii nii dañ koy classé comme un paria parce que il a quitté la majorité la pouvoir opposition aussi ne veut pas de lui le personnage d'Idrissa Seck la personnalité d'Idrissa Seck tey ji boo koy cerner boo koy analyser noo ko noo ko noo koy jàngatee. Idrissa Seck dafa am benn comment dire benn boo xam ne depuis les années deux mille depuis deux mille sept mhm. pratiquement stratégie boobu moom la def ci xelam maanaam ngir nga gañe foog nga am euh, appareil maanaam mbooloo bu bëri parti bu parti yu bëri euh, disons ay coalition bu mag bu mhm. mel ni CAP 21 bu bu président Wade wala Benno Bokk Yaakaar bu président Macky Sall loolu la def ci xelam comme stratégie politique ñu war ko ñu mën ko ko nangul aussi parce que boo xoolee. Mhm. ñi fi gañee ñëpp pratiquement euh, coalition bu mag moo leen jàppale. mais bu ñu fàtte ne aussi coalition yu mag yooyu toujours day am locomotive maanaam bopp saxaar si nga xamante ne mooy xëcc. Mhm. yeneen wagon yi léegi bopp saxaar si nag ci. Euh, CAP 21 moo nekkoon PDS boppu saxaar si ci Benno Bokk Yaakaar moo nekk euh, APR ak Macky 2012 mhm. mais foofu la foofu la mbir mi nekk na kon moom waroon na taxaw fexe ba euh, xeex ngir réew mi parteem doon bopp saxaar bi nga xamante ne dafa nar a taxawal coalition bu maanaam génn bi benn erreur la ci gis-gis. dugg bi moo nekkoon erreur. c'est-à-dire dugg bi erreur la woon parce que boo jëlee deuxième. Mhm. yow yaay ki nga xamante ne yaa jiite. il était il était à la tête d'une forte coalition. voilà exactement moo jiite woon kujje gi. Mhm. mais su liggéeyoon foofu ci kujje gi toog liggéey ci kuje gi ba nga xamante ne réew mi ak euh, ñi nga ñi. ànd ak moom dañu nekk une locomotive maanaam doole boo xam ne dafay xëcc yeneen parti yi kon tey euh, dafay nekk le leader incontesté de l'opposition day nekk ki nga xamante ne mooy jiite kujje gi te ñëpp nangul ko ko mais li mu bàyyi kujje gi dem fekki président Macky Sall. Mhm. loolu dafa tijjil boulevard kii di Ousmane Sonko Ousmane Sonko nekk ci kujje gi euh, sax ci ñi nga xamante ne ñëpp ñoo demandoo woon ak moom ci euh, deux mille dix neuf ñooñu ñëpp ñii président Macky Sall woo na leen ñu fekki leen ñii comme Madické Niang nee na ñu bàyyi nañ politique donc finalement Ousmane Sonko day nekk ki nga xam ne mooy doon le chef de l'opposition ah. donc loolu moo nekk la faiblesse majeure sa Seck te faiblesse majeure boobu aussi dafay poser ñaari problème benn bi mooy problème de cohérence maanaam li ngay jëfee ak li ngay wax méngoo beneen bi day indi problème de crédibilité maanaam mm-hmm. kóolute bu askan wi di am ci yow par exemple bi nga xamante ne euh, Abdoulaye Wade ci chantier de Thiès yi ak euh, les infractions d'atteinte à la sûreté de l'État et cetera mhm. téye nañ ko fi pendant sept mois bi mu génnee euh, maa ngi doon wax sànq victimisation boobu mhm. askan bi daf ko joxoon bopp am cofeel ci moom ba nga xam ne yaakaaroon nañ ne xëy na bu demoon 2007 def ni Macky di président Macky Sall defoon en 2012 xëy na kon mënoon na yóbbu président Wade au second tour mhm. pourquoi pas gagner mais li mu dem fekki président Sall euh, président Wade euh, à quatre reprises ci 2007 loolu am bari lu mu wàññi ci moom bi mu jëlee deuxième aussi 2019 mhm. ñëpp jàpp ne moo nekk le leader de l'opposition mu toog ba 2020 waxtaan pendant quinze mois mbubboo euh, Covid bi dal di dem fekki président Sall loolu itamit bokk na ci li nga xam ne wàññi na trop doole